moom la kudang di def du ne dundal aada bi waaye itam ñu ngi jàngal seeni xale kudang nag foofa ñu ngi fa doon waxtaanee mbiri aada ak cosaan eh, gannaaw loolu nag bokk yi dal dinañ jëm ci fa nga xam ne eh, moo di eh, njawara foofa nag waxtaanee woon nañ fa li nga xam ne moo di jàmm muy lu ama am solo sëy mooy bunt bi nga xam ne mooy bunti doomu aadama te mboolem lu yàlla binda doomu aadama moo gën a fort te doomu aadama mu ngi ñëwee ci sëy dëgg la yar jigéen ñi ñu ngi leen a wax ne ñooy walla yar waaye yara yar dafa jëkkee ci góor puisque première baay mooy aadama yàlla bi ñooy eh, bi ñooy wax suñu askan mu ne yéen ñëpp yéen a ngi jógeekoo ci aadama aadama mu ngi jógeekoo ci suuf ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla te nit mënuloo ragal yàlla te yaruwul boo gisee ñu ngi ekkati jigéen mu jóg kër yaa baayam bàyyi fa yaayam bàyyi fa magam bàyyi fa rakkam bàyyi fa santam ñu takka buum ci baatam yóbbu ko ci kër goo xam ne musu faa dem loolu yow góor mi ko fa yóbbu dafa am kàddu boo waxoon ci këri baayam wane fa yar ak tegin ñune la may ko nga ekkiti ci sa poos nga may ko won ko ne mun naa la yore seen waajur waxtaan ci biir ne fekkewulo ba ñu ne waaw ñu ne la indil nangam nga indi teg ci ñun indil nag nga indi teg indil wëlis nga indi teg ñoom ñu jël lu ëpp li nga indi ak ndaw si boole ko jox la loolu wag dëgg yàlla loolu bu fekkee ne gor nga war nga kelaat bés boobu loolu lu jar a waaye suma kalaas gi dañuy fàtte loolu te loolu waruñ ko fàtte de gis nga sëy e, bari na nit koo xam ne mbiram yàqu na ci sëy la waaw sëy dafay dafay defar lu bari waaye dafay yàq lu bari góor ñi nag yal na ma yàlla baalal ñoom la yàlla teg loolu waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne mu ne jigéen dañ ko bind ci faar faar bi gën a kowe ci càmmoñ ci lañ bind jigéen mu laaj saxaaba yi ndax eh, eh, maanaa yaxi faar bi boo ko buggee jubbanti ba mu jub naka laay def bay te boo ko bàyyee jubbantiwuloo ko mu gën a dégg nga kon naka ngay def wa quulu lahunna qawlan layyinan li kay amal na amalan saaliha nangeen ngeen wax seen jabar yi wax ju lewet wax ju yar ak teggin ndax ñu mun a def lu baax loolu wax la boo xam ne wax bu dëgër la yonent bi du waxantu la yandigu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa yonent bi lu mu wax rek yàlla moo ko wax te loolu la ñu jàngal na ngeen yërëm ñi leen féetee suuf ki leen féetee suuf kaw moy yàlla yërëm leen kon góor yërmaande moo ko amee mbugeel jigéen moo ko war a amee bu fekkee ne yow góor da gën a bugga sa jabar du ko jëriñ na ko gën a yërëm yërëm itam du comme ni ko alaaji sëriñ fay waxee mu ne mu ne yar ak yafal du benn de waaw islaam lim lim lim lim soxla ci yefal mooy kari tabaski dañ koy rendi rek waaw kon yar yonent bi yar lañ ko tàggee te moom la yàlla binda ni mu bugg a nit mel mu joxoñ ñu ko moom rek la wax ne bu ngeen ko toppee mel na ni topp ngeen ma fekk expliqué wu ci dara bu man yuudi i rasula fagat ala allah képp ku toppa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp nga ma man yàlla hatta nag waajur yàlla dafa wax ne na ngeen topp yàlla ak yonente bi rafetal seen diggante ñaari waajur rafetal seen diggante ñaari waajur ngeen rafetal seen diggante waaye nag bu fekkee ne sant nañ la loo xam ne yàlla andul ci falaa tud ihuma waaw bu leen leen topp de kon topp yàlla lañ koy def waaw kon jigéen yi ñun góori ñoo leen war a dimbale ci yar bi wak dëgg yàlla wa buñ ci teggee suñu loxo dafay deme e, boor toujours itam dama dee wax ne e, yow goor yow yaay e, uti dépasse indi maalo indi diw liñ koy toggee joxe dépasse nga jox ko sa jabar léegi sa jabar bu korosee loxom defut ci dara ba waxtu añ jat liñ ko joxoon rek mu delloo la ko est ce que da ngeen añ déedéet noonu la doom bi itam mel yow baay bi dafa am yar boo xam ne yow la ko yàlla sant yow yaa ko war a def am loo xam ne loolu ndey ji moo ko war a def moo tax ñaa ñaari nit ñoo war a yar waaw waaye ki gën a war a dimbale mooy baay waaw puisque baay moo war a jëkka yar yaay bu fekk bul wax ne rek jox nañ ma ndaw si yaruwul kër baayam dinaa ko bàyyi noonu dañ la ko laaj ëllëg parce que bi keroog biñ la ko joxee ñu ñu nga indi ko sa ker kera la ñooy ridda faayilam depuis bu mu juddoo kera biñ ko jox jëkkëram loolu yàlla mu ngi koy laaji ëllëg bàyyi yow itam kero biñ la ko joxe ba fi mu yeen em yow itam yow lañ koy laaji ëllëg euh, gannaaw bu ñu waxtaanee nag foofu ci Njawara euh, njëkkoon nañoo dem nag fa nga xam ne moo di caameen kër Baay Daam caamen kër Baye Daam nag foofa buñ fa eggee dinañ fàttaleku suñu mbokk suñu xarit aji awa caam di ko xam ne foofu la cosaanoo foofa nag waxtaanee woon nañ fa li nga xam ne moo aju ci mbiri jàppale wante muy lu am solo takkatoo ci caameen suñ ko doon topp ba suba sax du jeex caameen takkatoo nañ ba enoo fii néeg takkat ngir takkatoo enoo néeg buñ xam ne fii de eh, muy néeg seng ba kër ngaata suñ mbokk mi fi ne war toxu kër ngaata ñu takkatoo enu néegam seng ba kër ngaata dama dama am foo bëggoon nga ñëw fa tuuti rek dafa wax waxi ndaa euh, alaj sëñ te yàgg nañu dégg aduna aduna pottu ndaa la ku naan jox sa morom mu naan ndax dafay tekki ne ba léegi ndaa fii macha allah am na fi am na fi dara. am na fi solo ndax am na fi solo ndax fu ne nii ba léegi ndaa a ngi dox fii képp koo xam ne wàcc nga fii te duuloo séet bu ñu xamle li xew ci jamono. nga takk jabar ñoo la xabal nañ la ko mu xut siw bu am kubéer di ci def ndox di naan parce que mag ñi cosaan bañ doon def ne nañ dëx ndaal yi defaguñu ko siwo ba muy naanee ci siwo bu lay emb waaye bu xasee muuru ndaa lay xam mbokk yi benn tey rek ñu ngi leen di fàttali ne li ngeen di seetaan moo di eh, fàttaleku yi nga xam ne moom lañ waxtaanee woon ci at mi ñu génn nii ci biir programme yi ñu ni neen la fi mu nekk nag eh, ñu ngi toll ci fi nga xam ne eh, foofa moo di farafeñe Farafeñe waxtaanee woon nañ fa ay bunta yu am am solo eh, moom tamit ñu ànd seetaan ko. li nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaanee muy dundi jamono ji ñu ne nañ ci boole waale mbiri yar am na foo xam ne nag waxtaanee nañ fa mbiri yar waaye place bu nekk yarinam dafa wuute surtout kaw gi ak teeru ndax Farafeñe léegi du dëkkit kaw ndax dëkk la boo xam ne bi dëkk bu mag la. te boor bu ne la nit di jógee di ñëw toog biir Farafeñe fii boor bu ne la nit di jógee jaar biir Farafeñe continuer kon mu ngi mel ni Farafeñe bokk na ci dëkki capital yi kon yarinam ak yari dëkk boo xam ne bi digganteem ak tali bi mot na ñaar fukki kilomètre war a juróom foog mu xaw a uti ñu bëgg cee waxtaan nag ndax eh, waajur wu nekk waru garam la ci wàlli yar waru garam la ci wàlli sàmm ndax njaboot lu ñu dénkaane la bu ñu waree wax ci dundin ci jamono bi walu yar alay sëriñ duggur na ci bu baax xuus na ci sa suñu waxee dundin faaw nga dégg dundu wala mu ne bala ngeen naam kon mi ngi melni suñu wax dundin dal ñi ngi wax mbokk yi nga yalla dogal na ñi ngi fi ñi ngi yëngatu ci walu jëf ak ci walu wax ci lo xamne da fay feñal seen dundu waaye xam nga bu ñu waxee dundin ci jamono bañ ko déggee dafa tekki ne doomu aadama bi moom kenn nekku fi daf fi nekk ak ay ndey ak i ak ay maam yu góor yu jigéen ak ay mag ak rak ak ay dëkkandoo daf fi nekk ak ñëpp daf fi nekk nag bu ñu waxee sax dëkkandoo yi romb nañu sax nag nit ñi kese waaye dugg nag sax ci biir ñooñu nga xam ne dañ leen tudde bàyyi ma te mu ëpp nag ñu leen di alak ndax itam nag yàlla moo ñu leen tàggatal mu bokk ci dundin wi ñoom itam am na cër boo xam ne am nañu ko ba tax na bu ñu leen yàqalee cër boobu amaana feneen foo xam ne ñun tam daañu fa yàqule ci anam bu doy waar maa ngi junj rek defe naa démb xaw ma barka démb ci benn ci dëkk yu ñu dem may fàttali may may may bàyyi xel euh, ak ñi ma àndal ne bu jëkkoon dey mag ñi daan nañ bay bay